que jigéen buy sëy war naa taxawoo kon Ouleye Anta ni muy taxawoo jamono bile. question bi laa fas yéene laaj tey waaye déglul vidéo ba mu jeex tàkk ndax dinaa ci poser question boo xamante ne dinaa tax nga comprendre épisode 62 bi nan la nar a demee mbokk yi Ouleye Anta baax na lool waaye baax bu ëpp dafa am lu muy jur. teewlul ma tegal la benn video bi nga xamante ni vidéo bu am solo la jamono bii ku ci nekk mu koy partagé ndax amaana mën nga am mbokk mu feebar wala xarit boo xam ne bu ko seetaanee mën na cee jariñu nañu dem seetaan vidéo bi te ñëwaat boo leen ñëwee ma àggali leen 62 bi nan la nar a demee. fas gii damay wax ni doomu aadama joo xamante ni dangaa nekk ci néegu sëy sa jëkkër wan la ginnaaw wala yaa nekk ci néegu sëy sab sa yëngu sa goro wan la ginnaaw wala sa jëkkër wala sa rakki jëkkër ñëwal ci sëriñ nark badar doomu aadama joo xamante da nga am koy bëgg bëgg mu bëgg la lool ba du am sago ci yow ñëwal ci sëriñ nark badar fas gi maa ngi ci tukkal adduna képp koo xamante ni da am koy bëgg seeni waajur taxaw lànk ni sëy bi du fi amee neel patt te ñëw ci sëriñ naan ko ba dara seet dafa nekk loo xamante ni dafa am solo lool lool ci dundug doomu aadama ndaxte dari doomu aadama bi balay xam dara ci boppam dari doomu aadama bi balay mën a xam dara ci mbir boppam dara mënu koo xamal ci mbir boppam lu du seet sëñ Fallou seet rek nga mën a def mm-hmm. ci mbiru doomu aadama mm-hmm. man cee xamee lu baree baree bare bare wala listixaar mm-hmm. bépp doomu aadama boo xamante ne da ngaa bëgg seetal la mm-hmm. lépp loo xamante ne daf lay gàllankoor ci sa dund ñu xamal ko lépp loo xamante ne daf lay gàllankoor ci sa wàllu wërsëg ñu xamal la ko lépp loo xamante ne daf lay gàllankoor ci sa néegub sëy ñu xamal ko lépp loo xamante ne daf gàllankoor ci sa wàllu liggéey ñu xamal la ko jëlal numéro bi nga def direct ci whatsapp bi bàyyil ma fa message sa tur sa turu ndey sa turu bàyyi képp moom lay soxla wala nga yónnee ma sa tur ak sa turu yaay mm-hmm. photo sa loxo ndeyjoor nga bàyyil ma ko ci whatsapp bi direct ndaxte man kat damaa nekk nit koo xam ni mm-hmm. du su nekk laa disponible ndaxte liggéey bi mm-hmm. toll na foo xamante ni damay jële jëlee gone ñi ma jàppale ci liggéey bi kon na képp koo xamante ni woo nga ma jotoo ma na ma bàyyil message ci whatsapp bi képp koo xam ne insisté nga ba jot ma bay boo nga sant yàlla bu baax a baax ba wax alhamdulilah seet ak listixaar yàlla suñu borom moom ma ci may lépp lu ma ci wax du jaas yàlla suñu borom dogal na lii nga xamante ni moo nekk seetu li yàlla suñu borom may ma ci ndax suñu borom mooy jël doomu aadama xool lu ko soob ca jëmmam ja mu def ko ca ndaxte boo xoolee mbooleem loo xamante ni mos naa ko wax ci réew mi ci Sénégal teg na ci seen bët seet nag suñu borom moom ma ci may képp koo xamante ni da ngay bañ ma xam ci sa mbiri bopp li nga xamante ni dund nga ko ba weesu ko ak li nga xamante ni mu ngi sa kanam bul dikk ci sëriñ Nark Badar sëriñ Nark Badar képp ku mu seetal lépp lu nekk ci yow dana maay seet li ci néegu sëy yi maay seet li ci bërëbu liggéeykaay yi maay seet bay génne liggéey yi nga xamante ni dañ koo suul képp koo xam ne laa suul ab liggéey mu di la gàllankoor ci sa wàllu yaram di la gàllankoor ci sa wàllu liggéey sëriñ nark bala rek moo la ko mën a seetal benn liggéey bi nga xamante ni moom lañ def ci yow mu ngi ci bërëb sàngam liggéey bi nga xamante ne nga ko def ci yow diwu moo ko def ci yow tuddal ay tur seetu sëriñ nark rek moo leer noonu morceau bi bëgg a xam sëriñ bi lan mooy fas gi ngay seen mooy fas gi nga xamante ni mooy defar néegu sëy fas gi néegu sëy boo dégg muy neex sëriñ Narka Badara moo ko neexal relation boo gis muy neex couple boo gis muy neex sëriñ Narka Badara moo ko neexal ci fas gi fas gi na li ma ciy wax rek juróom-ñaari fas fas day nekk saa bu ma ko liggéeyee sa tur laa jël sa turu waajuru jigéen ak tur ki nga bëggante wala sa turu jëkkër bu ma ko liggéeyee ba nag ba def ko juróom-ñaari fas fas jàng jat gi nga xamante ni moom laa koy liggéeyee mm-hmm. ba tifli fii mm-hmm. dugal fii seen tur suñ fàllu oh. bu ma ci noppee ci guy gi nga xamante ni moom laay liggéeyee ci lay daaj fas gi fas gi 24 heures la da nga koy def léegi gis ko léegi du ay caaxaan dama leen a xamal leen mm-hmm. noog 24 heures sëriñ nark ba dal rek moo koy def tey fas gi li ma lay wax fa leer dama koy def léegi nga gis ko léegi du caaxaan dama leen a bëgg a xamal leen xam-xam du caaxaan nopp du caaxaan mm-hmm. sëriñ si mm-hmm. nanu jàng ji xam-xam sëñ Fallou mm-hmm. jaaro yi nga xamante ni maa ngi koy liggéey mooy jaaro yi eh. du ay caaxaan doomu aadama joo xamante dangaa bëgg a nekk milliardaire doomu aadama joo xamante dangaa bëgg nekk milliardaire jaaro bii moo ci gën a gaaw jaaro bi nag secret bi maa ngi ko jële ci kilifa gu mag eh. di sëriñ Mbàkke kam sëriñ Musaa Ka moo ma jox secret jaaro bii nga xamante ni mooy secret milliardaire képp koo xamante ni képp koo xamante ni da ngaa bëgg am te dootoo ñàkk ci sa dund lépp loo sombi lépp loo taxawal ci sa avenir yàlla sunu borom fekk si fekk si la ci liggéey bopp yi bu fekkente ne ñi nga xamante ni nag dañuy liggéey ci li nga xamante ni mooy wàllu commerce jënd ak jaay ñaari jaar yi bokkun dañoo nuroo waaye bokkun képp koo xam ne da ngaa bëgg wàllu bayre képp koo xam ne da ngaa bëgg lépp loo jaay mu jar képp koo xam ne da ngaa bëgg nit ñi bëgg la lool def la ci seeni xol nit ku weex wala nit ku ñuul nit ku weex bu ma ko waxee mooy tubaab jaaro bii laa lay liggéeyal kum mën a ko takkee da lay aar kum mën a doon boo ko takkee lépp loo jaay dana jar doomu aadama yi dana la bëgg te duñ ko sañ a te te a bañ doomu aadama yi dañ lay bëgg ko sañ a bañ lépp loo jaay danañ ko jënd nit ku weex ak nit ku ñuul du caaxaan waaye nag bokk la bi nga xamante ne mooy milliardaire secret milliardaire moom képp ku yorul xaalis hmm? bu leer nañ ah. bul ma sax woo di ma ci wax di ci wax ma di ma sonal